ñaaw na trop. ñaaw na trop. ñu ñaaw na ñu ngeen ko gisee nii fii da doon tàkk ay mat laa la amoon gën a ñaaw am na su wàcc liggéey am na su wàcc liggéey ñu ngi doon gisee nii mu yaakaaroon na fii lan moo fi xawoon sëñ bi est-ce que mën nga ci def témoignage. ñi nga xam ne seen yoon nekkul rek ñoo siy def ay muumin yoo xam ne seen yoon nekkul. mais li fi dee moom lan la. gis nga waa ji ñëw kii dafa dee kii rey nañ ko dafa dee kii waa ji dafa dee gis nga ndeysaan waa ji rey nañ ko dee ndeysaan kii dafa dee xool leen ko waa ji dafa dee ndeysaan kii dafa dee ndeysaan dafa dee xool leen ko ndeysaan dafa dee dafa dee. ndeysaan kii dafa dee ndeysaan ndeysaan ndeysaan kii dafa dee ndeysaan ndeysaan dee na ndeysaan oh ndeysaan amu ñàkk ba kanam ndeysaan amu ñàkk ba kanam ndeysaan dafa mujj mujj far faatu dafa ne ñu ne mujj na faatu ndeysaan dafa mujj faatu nee na garnaat moo ko rey mujj na faatu waaw dafa mujj faatu kii nii dafa mujj faatu dee na dafa dee mujj faatu la rek ci biir matelas bi parce que xam nga ay fauteuil la donc comme ay fauteuil la gars yi pardon comme ay fauteuil la non dawul laqatu comme ay fauteuil la dafa dugg ci biir di di nalaw di dallu tëdd noonu di dallu comprendre nga donc donc ba ñu ba ñu dóoree locomotion bi affaire affaire de mu dal ci ci ci ci euh, ci matelas bi matelas bi tàkk ba jeex tàkk donc ñun ñu ñëw nañ pour fay fay ba sonn fekk c'est trop tard fekk nañ booy bi wow ko jeex tàkk lan policiers yi ñoom ñoo ko policiers yi oto police bi oto ah. police bu weex bi criminel les policiers oto police bu weex bi moo ko def noonu criminel les policiers ngeen tracé ma nax la ko da tegante on verra ñu ne ko waaj moo nekk noonu dafa mel ni ku mer moom dafa ñëwoon ci dafa ñëwoon ci jàkk bi doon julli ñoom ndax mel ni ñoo ñëw jiite jàkk bi doon doppee loolu nag moom nekk ak moom dégg nga da ngay war a da ngay teg sa bakkan das c'est pas waaye yow ay baax ay bàyyi mu ne ci xol booy kan booy kan ay nit gàttal ñu bon fekk. ñëw jël si kii koor bi sappo mi ngi ñëw jël koor bi sappo mi ngi ñëw jël koor bi waajaay nii waaw gars yi rek fu mu toll mu ne nee nan waa ji dégg nga jox na information bi information bi jox na ko jox na information bi information bi jox na ko gars yi jox na information bi que gars yi ñu jox information bi information nañ ko waa kon du mu leeral dafa leer nañ jox na information bi nee na ko dóor barke sëñ Bamba ni ñu ko dóor lakkat ma mu dal ci dënn bi après mu daanu ci safara bi barke yàlla xam nga loolu yéeme na Sénégal la ngi noonu yéeme na yéeme na trop waaw waa ji nee na dégg nga li mu wax kon man man maa ne ko naan def information mais information bi mujj na leer information mujj na leer moo joxum réew moo demee ah. waaw ah. bilaay wal dafa dafa rafetlu Macky Sall ñoo la bëggoon ngir yàlla yontu bi 2012 ñoo ko faloon Sénégal gépp bëggutuñu la wallaahi kilifa diine yi sax dañuy masax ak yow mais bëgguñu la billaay walaahi demal ngir yàlla yontu man damay ci dëkk bi organiser élection woo ma la législative mais élection présidentielle billaay wala que le maire gañ moom dana jël dana yow dictateur nga quoi vraiment vraiment ñun bu xamoon lii la fan da nga ñëw nëbb sa jikko daa war a lii ñu ngi def nii ngi ñu def nii ñu ko du la ko mës a baal on Sonko la ñuy xool incha allah rabbi lay lay ba kor yomb xiyam incha allah Ciao faatoo euh, fii la faatoo fii la faatoo gis nga mooy image bi jël nii en face Masalik bi foofu la faatoo mooy fii. ay daal di tàkk ñu tàkk tàkk bu gaaw la tàkk nag tàkk bi dafa garaaw kenn mënu koo jege mais bi mu tàkkee ba pare nag la seen boroom ñëw doon seet di ba xam na am na lu fi des lu lakkul ci lañ yëkkati benn affaire rek gis waa ji lakk ba xam ko koŋ waaw. waaw xam naa kenn la ci ñi doon yalwaan fii moom xam naa. Ah, ci maanaam dañoo yëkkati matelas fekk ko ci biir matelas yi. waaw parce que da doon nëbb parce que ñoom xam nga comme ah, way laago la xam naa peut moom dafa mënul daw mu doon làqutu foofu. mais góor la wala góor la góor la mais duñ ko mag la mag la war a doon parce que ni ma ko gisee mag la waaye neexul xàmme waaye mag la de. mag la moom dafa tàkk ba yax yi yëpp génn. moom kay dafa tàkk ñoom est-ce que xam nañ sax taal nañ fi nit ñoom kañ biñ taalee yëfi jàmm bañ tolloo fële lañu la xam naa bu ñu gëstuwul sax duñ xam ne liñ loolu ma ngi tàkk parce que dañ ko sànni rek continue waaw seen oto bi li mu fi jaare moo bari parce que xale yi dañ leen a dàq xale yi dañ leen a dàq dañ fa fekk xale yu bari fii ñu dàq kan kooku jël nañ ko bu yóbbu ko jël nañ ko yóbbu non kooku nag xaw ma ko parce que kooku mënoo xam sax mag la wala gone la waaw moom daal yaxi yi kese la. dafa xëm mm-hmm. dafa xëm. wan la da ngay jàkkaarloo yax yi faar yeeg lépp ak bëñ yeeg lépp moom desewul yaram daal waaw desewul yaram waaw waaw waaw. moom dafa tàkk ba xam moom. ah mais li ñëpp di lancer rek parce que fi ne ñun dictateurs yi dañoo sonal fi ne dañoo sonn réew yi bëggatuñu dara fi ne ñii nañ fi jóge abal ñu yaa dégg nga buñ ñu xañ suñu Ousmane Sonko mi parce que xañ nañ ñee jiitu woon Ousmane Sonko mais kii nag moom ci la suñu bakkan yi des ci la suñu bakkan yi ci la suñu bakkan yi des Ousmane Sonko mii buñ buñ ko dañ ko dañ ko bàyyi wala ci la suñu bakkan man kër ma jabel laa jóge de comme dëkk Moustapha Niass fa laa jóge waaw